Eh, ki nekkoon la directrice de l' solidaire mm-hmm. muy Diégui Diop. Mm-hmm. Eh, dem RFM matin def sorti le lendemain euh, situation ba jaxasoo ba moom mu présenté euh, démission am te moom moo présenté démission am mais c' est à la suite d'une mise en demeure boo leen ko def eh, en di en lui reprochant d' être allé faire l' émission sans san sans sans s'en référer euh, la à la hiérarchie et à lui reprochant des absences. wallaay je savais que cette question baa ma être baa m'être posée mais dama lay waxoon leen may mun a. <laughs> ah préparé woon non bi may ñëw laa wax ne dañ ma wax. non affaire bi jeexagul foofu laa ci yem du ma ci wax. non non. du ma ci wax euh, may mun a xamul lu may laaj xamul lu may laaj. ma ci am ngeen droit. affaire bi. non am ngeen droit amul. benn demande d'explication bu ñu joxe sur la base d'une tortille à une émission loolu amul. mais mise en demeure bi commencé wu leen ko en disant que euh, dafa dem émission tàggoowul après ngeen dugal ci affaire absence yi. vous me pouvez me pousser à répondre à cette dama ne yooyu yëpp demewul noonu. waaw ñu joxuñu ko mise en demeure parce que dafa dem ci émission benn. et les choses sont plus complexes di le dis ici solennellement c'est-à-dire. c'est plus complexe que vous ne le pensez justement moo tax moo war a am réserve. non euh, mais mun am na loo xam ne sa euh, relève. du secret administratif may oui d'accord am na loo xam ne ça relève. j'ai pris des décisions les décisions sont en cours je laisse les te dérouler le plus normalement possible. waaw ouais, mais xam nga benn affaire mun nañ ko on s'attendait peut-être à ce que Diegui et tant d'autres euh, ñu euh, quittent. mais concordance bi moo xaw a poser problème elle va faire RFM matin et le lendemain vëpp ça tombe et puis comme si vous vouliez donner des gages la lettre confidentielle se retrouve dans les journaux la lettre confidentielle se retrouve ouais, dans les journaux une lettre adressée personnellement à à à à, à, un, à un membre du du cabinet se retrouve dans les journaux comme pour montrer que voilà celle la elle a elle a elle a elle a elle euh, pour sa pour sa témérité. ah man de lii yaa man daal xam naa ne man. ah. affaire bi mu amee jël naa ay décision décision yooyu la teneur duma ko révéler fii. décision bi mooy daf ko mise en demeure el elle a répondu en démissionnant. elle attend ce n'est même pas ça que ça. loolu que plus complexe que ça. naa la ko loolu mais mais mais monsieur le ministre man nag dama xam man gis na man quand on m'a xaw ma na seetaan man la la la la dernière m'a a du courage. <laughs> wallaahi je l'ai ici. xam nga parce que dama la gis ngay communiquer avec beaucoup de transparence et gis nga boo waxul nit ñi fii. ñun opinion bi dañuy jàpp lu ñuy jàpp ah. Diégui Diop euh, dañu ko dañu ko bundu xataal poussé ko à la démission parce que elle assume ses positions politiques et idéologiques. waaw mais ñi jàppaloon dañ jël. déedéet après bu leeree xam nga loo gis. xam nga yàkkamti da am devoir leeral sénégalais yi. xam nga fi ma ne yaa ngi wax ay courage xam nga gars yi noonu la ñuy def dañu lay pousse. gis naa peut-être bi ndax ñu jéem a def loolu diggante Bassirou Diomaye naan. Euh, Sonko arrache la magister la la la la la diplo xam la diplomatie façon yooyu. su ko yaakaar ne ñun dañuy gis suñu bopp gis nga ñun dañoo dërkis. ah bon dañoo dërkis nous sommes <laughs> inébranlables. inébranlables mais mais mais monsieur le ministre. l' accès à l' information. may mun a ba bu àggee ci keppaandaw gi ñëpp dinañ yëg état dafa war a am secret état noonu la war di doxee xam nga li fi daan am. lu xew président ñëpp yëg ko loolu dafa war a jeex. ah lettre ba kay euh, je pense que du jéegi moo ko génne. ah man daal xam naa ne. li ma mën a wax man daal li ma la mën a wax mooy man sama collaborateur yu yu loi yooyu yi fi nekk yëpp amul dara loo xam ne def nañ ko jusqu'à président ba fii ma toll di wax à ce temps te lu nekk lu demee ni ay violer la le secret professionnel wala ay euh, yu confidentiel wala yu demee noonu amagu fi ñi ma fi nekkal ñëpp jusque là ils sont intègres euh, di observer le droit euh, voilà de réserve et tout maintenant képp koo xam ne nag yow da nga am problème ak yoon mais man nekkatul man su ma xëfee mais problème ak yoon daf cee am non xam nga bu ñu nee yoon ça peut être réglementaire du question yoon justice rek nga jàpp ay kii non ok mais même si c'est réglementaire yoon la d'accord donc nous avons pris des décisions réglementaires mais dañuy bàyyi mu àgg duñ fi nekk di communiquer di créer ay polémique te bu dul dara man nag kilifa laa nag man du ma wàcce sama bopp du ma wax lu tax keneen war a ñëw fii di weddi wala yu demee noonu man du ma ko teq ak keneen alors. Euh,